713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa laadum de ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. waaw li ma mën a wax rek mooy euh, comme ni ngeen ma ko laajee léegi euh, Ousmane sonk bi nga xam ne mooy leaderu Pastef tey jii yàlla def na euh, wala mën naa ne placé nañ ko sous mandat de dépôt maanaam dina dem kaso kaso nag kenn yéenewu ko kenn parce que même bu fekkee ne nit opposant la wala mu doon sax sa ennemi te du ennemi Euh, dafa am ay gàllankoor ba dem kaso amul kenn koo xamante ni yéene na ko loolu mooy lii am mais nag ci réew droit la ñu nekk ci démocratie la ñu nekk ci république la ñu nekk république nag jàpp naa ne bu ab institution di def liggéeyam comme ñun ni ñu koy defee à l' assemblée nationale institution judiciaire di def liggéeyam dañuy xool li nga xamante ne ni gis nañ ne institution bi euh, def na ko wax na ko ñu xam ne kii kat la nga xamante ne ni moom la ñu koy toppee naam am na présomption d' innocence dañuy xool Euh, ba ci cappaandaw ga lu muy joxe ndax nag tey jii dossier la boo xamante ni mu ngi nekk en instruction amul dara loo xamante ni war nañ ko ci mën a wax dans le fond li ñu ci mën a wax rek mooy constater comme tout le monde et que di wax sénégalais yi aussi ñu am dal parce que Sénégal je pense que il faut que nit ñi xam ne institution judiciaire bi il faut que muy def liggéeyam il faut muy def liggéeyam pour que réew mi nit ñi xam ne réew mi réew yoon la réewu démocratie la république la aussi parce que république moom moo doxalee noonu. judiciaire bi day def liggéeyam euh, parlement bi di def liggéeyam exécutif bi def liggéeyam tey nag judiciaire bi moom mooy def liggéeyam et à chaque fois dañuy dégg ñuy wax ne justice bi nii la tëddee wala nee la tëddee waaye lépp loo xam ne moo ci am mooy gis nañ fi à chaque fois que magistrat yi rendre ay décisions yoo xam ne soit day dem ci côté pouvoir wala mu dem ci côté opposition loolu nag li muy wane rek moom mooy njaaxaanaay bi justice tëddee parce que magistrat yi fi nekkoon démb ñoo fi nekk tey ñoo fi nekkaat suba donc je pense que il faut que loolu aussi nit ñi xam ko di woo nit ñi ci dal ak euh, ku ci nekk la nga xamante ni mooy sa wareef ci wàll wi nga def ko. lan moo waral ngeen fomm bi kenn fomm ko parce que plénière bi lenn rek moo ko taxoon a jóg mooy tëj session extraordinaire bi te session bi tëj nañ ko. des juridictions ak séparation des pouvoirs na leer séparation des pouvoirs mooy exécutif dafa am liggéeyam. ñun législatif dañu am suñu liggéey judiciaire am liggéeyam benn bokku ceeg sa morom nag ku ci nekk da ngay toog fi nga xam ne foofu lañ la dénk ngay liggéey loolu ñun ñi ngi ci loi yi ñi ngi fii ci voté ay budget ak yooyu loolu mooy suñu liggéey mais li ma ciy commenté rek mooy li ma gis mooy exécutif à travers le procureur bi nga xam ne moom mooy maître de poursuites c'est-à-dire moom la ñu permettre mu dem topp nit moom moo topp ab citoyen bi mu ko toppee ne ko ah bi ma euh, dama gis ne def nga lii def nga lii def nga lii bi mu ko toppee ba pare mu jébbal ko juge d'instruction bi boobu dugg na ci li ñu naan euh, judiciaire <coughs> donc mu dugg ci judiciaire doy euh, le juge d'instruction décider que ah kii dam koy def sous mandat de dépôt donc ñun ay député lañ amuñ luñ ci commenté. Clédor Sène mu ne même su demee prison mën moom avocat la rek na continuer di wax comme avocat kon du ma commenter loolu avocat yi nekk beneen côté bi mun nañ ko commenter mais bon entre avocat la daal loolu awma lu mu ci wax. ndaw yi ñu jàng euh, jàng ba am seen diplôme ut liggéey. loolu rek mooy seen taxawaay waaye du politique ndaw yi jàng am sa diplôme liggéey amul leneen nag. souhaitons à personne la prison mais comme vous l'avez dit euh, l'actualité aujourd'hui c'est que Ousmane Sonko qui est leader du PASTEF et euh, a été arrêté et mis sous mandat de dépôt et euh, c'est dans une nous sommes dans une république nous sommes dans dans le fonctionnement normal des institutions de la République Et je pense que quand euh, un citoyen a maille à partir avec la justice, la justice fait son travail convenablement. Aujourd'hui, c'est un dossier pendant devant la justice. Nous ne pouvons pas nous prononcer outre mesure euh, dans le fond, parce que vous savez, vous tous, que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Et à l'épilogue de, cette, euh, de ce feuilleton judiciaire, nous pourrons nous prononcer pour dire notre point de vue là-dessus. Sinon, euh, ce qu'on a à dire sur cette question, c'est que euh, nous appelons les Sénégalais à, à, au calme, nous appelons les Sénégalais à, à, la retenue, parce que nous tous, opposants comme pouvoir, euh, opposition comme pouvoir, personne n'a quand même euh, ne, ne, ne, ne, veut voir, je vis bien, je, euh, ce pays quand même euh, à feu et à sang. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Et je pense, comme je l'ai dit, euh, la justice va faire son travail et on verra exact, exactement ce qui suivra de cela.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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax